ci waxtu juróomi waxtu ci bis bii di yow ma asura eh, jox ma ndigalul naa ñëw fii ci daare Hizbut Tarqiyyah ci jëwriñ ji sëriñ Yuusu jottali ko ndigal lii ngir ñu saare ko ba mboolem mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp man cee jot te jariñoo ko ndax njariñul kese la bayit wi nga xam ne moom moom la sëriñ bi wax ne man zanna xayrallaahi yuxni aw yadur fa zaaka fit daareeni du kaddin wa la wax ne mu ngi jox ndigal mboolem taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ñu saxal ko bis bu ne eh, gën jaa néew ñetti yoon ci suba gi ak ci ngoon gi ñetti yoon nag mooy lim bi ci gën a néew waaye ku ko weesu it amatul ab lim loo ci def rek baax na waaye daal mi ngi ci jox ndigal mboolem murit yépp ak képp koo xam ne nangu nga laabiire gu jóge ci moom ndax njariñul kese la lu jëm ci jullit yëpp man zanna xayrallaahi yuxni aw yadur fa daaka fi daareeni du kaddin wa xam naa jox na ci ndigal sëriñ Yuusu it ñu bind ko mool ko te tasaare ko ba képp ku ko mën a jari bëgg a jariñoo rek jariñoo gi du la jafe bu ko defee bayit wi nag doonut bayit wu berew am na yu mu àndal waaye sëriñ bi jëmmi bayit wi rek la wax ne moom la joxe ndigal bi koy waxit dafa wax ne nañ jiital bismillahi rahmaani rahim wane it sëriñ bi moo ko wax moo ko waxal boppam ne xaalahu seyxuna ahmad al xadim alayhi akbaru ridwanillahi taala al baaxil xadim su ko defee teg ci bayit wi bayit wi nag moom la joxe ndigal bis bu ne gën jaa néew ñett yoon ku xas weesu ñett nag amatul ab lim ngoon gi noonu yàlla nu yàlla fayal sëriñ bi gën jëlum masa fay ku muy liggéey liggéeyloo te defal nu ak dégg akuk topp akuk jariñu